ñëw fii fii ci monument de l'obélisque euh, pour célébrer le lancement officiel de la campagne des 16 jours d'activisme muy commencé waroon commencé le 25 novembre avec la journée de lutte contre les violences faites aux femmes war a jeex le décembre avec la journée internationale des droits de l'homme euh, campagne bi dina bu jeexee aussi cela ne veut pas dire que waxtaan week jokkoo bi day jeex parce que violence à l'égard des femmes buñ ciy wax du duñu mës taxaw duñ ci mës taxaw dañuy dañuy mës di continuer rek ànd kook nag partenaire au développement yi ànd kook les organisations de la société civile. violence yi bari na y a les violences économiques nit war a jox jabaram dépense joxu ko ko te loolu bari na trop léegi jigéen ñi nga xam ne ñoo yor seen bopp violence yi bari na. am na violence yoo xam ne verbal la maanaam wax ak nit wax bu dëng rek violence la waxuma laa da ngay saaga violence dóore mi ngi fi ñii jigéen ñaa ñu leen du dóor ñu ne pat seen biir néegi duñ ko wax. am na ñoo xam ne sax dóoruñu leen mais wax ju ñaaw dañ leen di ñu dëkkee ko wala ñu marginaliser leen ci seen biir kër violence yi bari na seet nañ ne même université yi lycée yi lieu de formation yi école yi fépp la violence am léegi bu ñu xeeb dara même romb nit xool ko xool bu xaw a doy waar sax violence la kon bu ñu defee ne violence doore la wala sotti diwlin wala dagg mbubu jaambur non non violence bari na lu dina am yoo xam ne ñu ngi koy xeep fekk violence bu mitt la nit kaa ngi koy dund mënu ko wax